na moo delluwaat ci wàllum théâtralisation daanaka bëri na lool ñu ngi koy euh, indiwaat euh, fi nga xam ne daal mooy ci bëri waxtaanukaay yi waaye ñu bëri yaakaar daal ñu ngi koy lëkkaloo ak li nga xam ne mooy li gën a fas ci yéen kaay yi ba tax na sax loole naam fës na waaye tamit foog ñu daal di xam lan mooy théâtre ci wàllum politique ak ci rek loo xam ne wàllum dund askan wi la théâtre nag moom daanaka ñu bëree bëri ñu ngi koy daal di jëfandikoo ngir mën a wax li nga xam ne kat moo leen metti waaye nag foog ñu déggoo théâtre nag moom forme d'expression la ci wàllum art waaye tamit mu wuute lool dafay daal daal di fësal ay ñëgg-ñëggi xool daanaka méttitu askan wi wala yoo xam kat seen kontante la am loo xam ne kat seen njàqare la ak loo xam daf leen manqué kon dafa am lëkkaloo boo xam ne kat mës na ko ca jàppe ci diggante théâtre ak revue de presse maanaam li gën a fës ci yeneen yi kon tamit dañ koy daal di méngale ci dunduk politique wala ci dunduk askan wi naam waaye tam itam théâtre naanaka ñu ngi koy lëkkaloo ci waxin ci bind ci wàllum rajo ci wàllum euh, télévision ba ci wàllum euh, yaram ba ci kàllaama gi kon nag théâtre nag moom daanaka dafa nekk daal lu nga xam ne lu am doole la ci euh, daanaka dunduk nit ki kon théâtre moom ci boppam dafay daal di delluwaat ci ñu wax la nga xam ne moo xew daal di koy génne maanaam bind ko teg ko nit ñi mën koy xool daal di koy mandargaal am ñu koy jëmmal nag yéenekaay yi nga xam ne ñoo bari lool am ñu koy utiliser ay animateurs yoo xam ne ci ay rajo wala télévision ngir mën a wax li nga xam ne mooy xaaru askan wi wala sax daal di koy jaarale ca nga xam mooy ci wàllum théâtre kon tamit foog ñu daal di déggoo ci li nga xam ne mooy ñu bëree bëri wax nañ ko muy wàllum théâtre dañ koy lëkkale ci wàllum téere ci wàllum politique ci wàllum philosophie adduna nag moo tuddee noonu ñu bëri di jël mbir di ko daal di mëngale li nga xam ne kat naam am ñoo xam ne jàpp ne doxul waaye ñuy jàpp ne kat mënees na ko cee jëfandikoo rawatina ñi nga xam ne ñooy liggéey liggéey taskati xibaar kon tamit waruñu koo mën a beddi ci dunduk nit ki.